alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne moo ñuy boole ci guddi gi ñi ñi daje pour waxtaane wàllu yàlla nit yàlla boroom xam-xam ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku doon Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ci mbooleem feeñuwaay ci mbooleem awalim alxaybiya wal ayniya yàlla moo ñu ko baaxee may ñu ko mu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon buñ toogee <coughs> guddi di waxtaanee mbiram dafa mel ni waxtaani sant yàlla rek la ndax loo xam ci moom jëfee ko mu jëriñ la loo xamoon ci moom fàtte ko ñi fàttali la ko nga jëfee ko mu jëriñ la kon kooku ci lañ bëgg a waxtaanee tey ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi nekk yépp suñuy gan alxaaj Mohammad Zeynabu sëriñ bay Ñas nga xam ne mu ngi door a ñëw fii gane si ñu koy tatagal ak suñ tante Seyda Zeynab Ñas nga xam ne ñu bëri ci yéen xam ngeen ko koo xamu tim na xam ne mu ngi ci dëkk bi doom Cheikh Ibrahim la ñëw na fi fan yi te mu ngi waaja a ñibbi ñu ngi koy jàppal bés pour tàggoo mooy kayit yooyu ñi leen jox pour ci nekk na ci bàyyi xel ziyaara leen ngir yàlla jokkoo moom ngir yàlla njëriñ rek moo ci nekk ñu koy nuyu di nuyu ay rakam salamata ak seeni doom ñi nga xam ne ñoom ñoo sos daayira bi ñu nuyu suñ mag Baay Ñas mi nga xam ne luñ nekk sax lu bari moom am na ci cër moom ak mbay mee bañ nekkee ci daara ji waxtu buñ buggee bañee dem jàng sax ñoo ñoo ñoo enn ñu yóbbu ñu ci daara ji kon lépp lu ñuy def rek ñoom am nañ ci cër bu bàyyi daan wax ne nañ def ndànk mbay def naa waaye nañ ko enu rek waaw kon ñooñu tim suñ mag lañ waaye suñu soppe lañ ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk yëpp muy limaan yi nga xam ne américains yi maam Saïd Saame Abdul Majid Amin Jibril Lomomba ak mbooleem soppe yi nga xam ne ñu ngi fi ñu jugee Atlanta ñu jugee Detroit ñu jugee Baltimore ñëw fekkee si jotaay bi suñ mbokk yi ñoom Abdoulaye ñi nga xam ne man sax démb maa ngi leen di seetal excuse di leen wax ne xam naa ne bu yoon wi jafee rek bu ñu yónnee leen band yi waaye bi ñuy tegu ci yoon wi sanq sax yëguñ ko loolu yëpp li mu tegtale rek mooy mbëggeel ngir yàlla ñu ngi nuyu mbokki taalib yi nga xam ne tim ñoo ŋànk daayira bi muy góor ñi muy jigéen ñi xasatan jigéen ñi ñu ngi nuyu daayira yi ñoom Bamba Sall imaam Mouhamad Ndiaye ba ñoom ñëpp ak ñi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk ci turam ak ci santam ma kumba mu jugee ba Atlanta Furqaan ñoom ñëpp nuyoo boobu sax dafa neex rek ci xol yi nit ñi nii waaye du dara li am solo mooy yàlla moo tax ñi dajee fi yal na yàlla gis teewaay bi te gërëm ko waaye dinañ ndokkeel suñ mbokki jigéen ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ŋànk lii seen sawar biñ ci sawar rek moo tax moo ñu puus mënuñ koo ñàkk def te li xew nii yëpp ñoom ñoo ko sëbëb ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ñaanal yàlla mu yokk leen tur wi nga xam ne moom lañ jox seen daayira bi muy maam su Jànqa ci moom la ñuy commencé suñu waxtaan Eh, yoon teeyoon nañu tuddee ko daayira bu baax ndax benn misaal rek laay joxe ci jigéen ju am itte ci moom bàyyi moo nettali ne ba bàyyam jógee màkk muy maam Alaaji Abdoulaye indi zam-zam yaayam moo ko jox zam-zam pour mu naan waaye yaayam ti moo ko sax éene gi nga xam ne moom la war a naanee zam-zam mu ne yaayam bàyyi mu ne foog na ne boobu dalagut jàng waaye fàttewut éene gi mu ne yaayam daf ne ko fasal éene ne da nga wëttu alquran ak xam-xam lépp ci sa dundu baay duñ fàtte nu itam suñ mbokk yi gaane imaam ak ñi ñu ànd ak ñoom ñëpp fasal éene ne da wëttu xam-xam yépp danga nga wattu alquran ak xam-xam yépp ci sa dundu baay wax jooju lim gàttee noonu lu bari la làmboo lim njëkk a làmboo mooy ne maam asu jànq xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne maa u zamzama li maa shuriba la yonent bi moo wax ne ndoxi zamzam loo ko naanee rek pour loola la kon moom xam na wax jooju ndax kër maam alaaji madrasa la emut ci xam na wax ji waaye gëm na tim gëm na tim wax ji emut ci gëm na wax ji waaye am na itte bu rëy ndax fasal ena da nga wëttu xam-xam alquran ak xam-xam yépp mënoon naa em rek seeg foofu da naa em seeg foofu waaye ak xam-xam lépp ci sa dundu baay loolu daf lay wan ne baay bu màgg bii ñuy waxee nii am na soxna su baax soo xam ne liggéey na ci ci màggaay yi kii ñi war a waxee tey jii te mu nekkoon ku baax ci mamalaaji bam seddeel ko mbaax googu ba wax ne bu jurut xalifaam keneen du ko jur bi maanaa dana jur koo xam ne ni dana ko mën a doon moom mamalaaji baayam nag muy maam alaaji moom xaddis wala xaraja loo wax ci tedd ak xam-xam ak njub ak fegu ak mbaax lépp dajee na ci moom damay wax toujours ne am nañ mag ñu bari ñu baax lool ñu ci bari génn nañ frontière yi Sénégal dem jàngi xam-xam maam Alaaji Abdoulaye sa génn frontière yi Sénégal jàng xam-xam waaye ñim jàngal xam-xam ñoom lañ njëkk a xam ci Sénégal ñi génn frontière bi di jàngale moo tax bàyyi ci ñu màgg ñooñu la jógee bëgg gi mu bëgg baayam daf doon wax ne bëggut ko ngir ne baayam la dafa am benn téere boo xam ne mutrabi saamiin ci dund maawalaa ji lañ ko bind téere boobu kiy bind téere bi ba mu koy bind sax bàyyi juddoogul doomi maawalaa ji yi juddu biir yi tuuru sax tudd na leen ci téere boobu bàyyit gannaaw gi talxiis na téere boobu bindaat bind na ko maanaam summarise ko mu nekk lu m am na muqaddami bàyyi bu ñoo Muhammad Laawul Sayid bàyyi daf ko jox téere bi mu dem jàng bi mu ko jàngee nag bind xasida bu rafet ci Mawlaay bi mu indee xasida bi jàngal ko bàyyi bàyyi sawar lool waaye ne ko maa ahbabtuhu li annahu walidi ahbabtuhu li annani wajadtuhu min rijaalillahi bëgguma ko ngir sama baay la de dama koo bëgg ngir dama koo fekk mu bokk ci góor yàlla yu mag am itte boo xam ne tariqa tijaan bi ci luñ xam ñun maam alaaji moo njëkk a dem faas dajeeg ña fa nekk dajeeg si eh, si ahmad sukkayrija dajeeg arab ibnil muhibbi dajeeg kàngaami tijaan yi nekkoon foofu yépp indi lijaasa litlaaq boo xam ne moo njëkk dem faas ci itteem jooju indi ko ba mu demee ci itteem ji mu am demee fas bokk na ci li mu doon ñaan yàlla yàlla may ko doom joo xam ne dana anu xutbaaniyatul uzma toog na ci xabru Cheikh Ahmed Tidiane di ñaan ba yàlla wan ko bàyyi mu ngi taxaw nekk ku am fukki at ak benn mu xam ne ñaanam gi nangu na te nangu na ci kii moo tax bàyyi daf doon wax ne kullu ma nahnu fii xasanatun min xasanaatihi lépp luñ nekk rek mu ne lu baax la ci moom maam alaaji jëloon na benn xasida di ko tagg ba mu demee ba ci biir dafa ne wax ne fa innani saliluhu wa kayfa asifuhu wa hal utiqu lwasfa lakin man allamani wa arshada azubu anhu kulla qitlin qasada doora wax ne raxala naxwa mashriqin wa maghribin summa ataana misla anqa maghribi fa axadat anhu shuyuxu lasri wa xadaat lahu wa xadaat lahu shuyuxu dahri wa axadat anhu shuyuxu lasri israarahu wa ilmahu walkullu qaala bi annahu xidamu lfaxlu mu ne tukki na del si tumuranke ba mel ni piccëb xaaqu dërëm piccëb xaaqu dërëm dañ koy dégg rek ku tumuranke ba mel ni piccëb xaaqu dërëm mooy koo xam ne kenn gisul sa ndend sa kem mu ne sëriñi jamonoom yépp toroxlul ko jël ci moom ay asraaram ak ay xam-xamam nangu ne moom mooy kuy wi wax na foofu ba wax ne fa man yusaawi waalidan bi waalidi fa ayna farun misla faru waalidi mu ne kuy tëkkalee sa baay ak sama baay jii nag mu laaj Abdoulaye mu ne ma lay laaj rek nga indi banqaas ay doom yu mel ni doomam yi kon ñooñu ñooñu nga xam ne ni ñoo ko meññ mu yar ko ci tariqa tijaniya bi ngeen xam zaatil asraari rabbaniya nga xam ne moom mawalaaji àgg na ci xutbaaniyatu ci tariqa bi te àgg ci xutbaaniya ci tariqa bi beneen affaire la bàyyi buy tudd si àli timaasi ni dafay wax ne alladi balaga alxutbaaniyata fi tariqatina nga xam ne àgg na ci xutbaaniya ci suñ tariqa bi mu dajale mbooleem xam-xam yi kooku mooy ki nga xam ne moo jur Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nekk ku fegu su koy riji bind na benn téere boo xam ne jinaayatul muntasibil aani la ko tuddee mu ngi cay wax ci ñi taalif ci tariqa tijaaniya inna ci sid xaaji malik inni maam alaaji abdoulaye ba mu indee maam alaaji abdoulaye dafa wax ne sheybatul hamdi allazi urifa fi tasarrufi fi l insi wal jinni ki nga xam ne xam nañ ko moom ne dafay def tasarruf ci nit ak jinne loolu bokkoon na ci ci ay jagleem duma laa wax ne bàyyi balaa juddu yaayam gént na gis weer mu daanu ci kawam mu wax ko maam alaaji mu ne ko loo foog ci sa doom ji mu ne ko lu baax laa foog ci moom ba juddoo loo yaakaar ci moom mu ne ko yaakaar naa ne bu dundee dana barke mu ne ko loolu tim man laa yaakaar ci moom waaye nëbbal sa gént gi mu sosu taahiran mu sant yàlla ci loolu moom bàyyi ma wax ne alhamdulillahi nachatu taahiran maa qultu faxran bal nataqtu shakiran maa qattu jaalastu safihan wa lamma ashab siwa fuxuuli qawmin ulama bàyyi wax ne maa ngi sant yàlla dama sosu nekk ku laab mu ne waxuma loolu nag ngir puukare waaye dama ko wax ngir sant yàlla amma bi ni'mati rabbika xaddis bàyyi na masumaa toogaale ku jég ku doyadi maanaam ku doyadi mën naa toog ak bàyyi waaye fekk bàyyi toog tëg moom te masumaa ànd ak lu may borom xam-xam yu mag yi te loolu ñi doon dem kër baayam tudd nañ ko jamono ji nga xam ne Ibra rek lañ koy wax am na waykat yi Mauritanie bu wax ne boo demee kër maam alaaji wa kullun mislu ibra fa xayihi wa ibru min al zuwaari yadnu wa yaqrubu boo demee kër alaaji abdoulaye mu ne kul lay niru ibra rek ci xale yi nuyu ko boo buggee xam ibra mooy kan nag mooy ki nga xam ne dafay jege gan ñi waxtu wu nekk loolu yëpp pour bëgg lu baax rek toog naag bàyyam jotaay boo xam ne baayam ak abdoulaye wul alxaaj la ñuy waxtaan te boobu mu ngi jàng alquran ci loxo bàyyam abdoulaye wul alxaaj laajte maam alaaji benn laaj fu ngeen gis ci alquran ne alxaaji abdullah yansuruhu llaahu ndax gis ngeen ci alquran kuy wax ne alxaaji abdullah yàlla dana ko dimbale bàyyi na gis naa ko mu ne ko foofu gis mu ne ko yàlla moo wax ne wala yansuranna allahu man yansuru yàlla dana dimbale ku koy dimbale mu ne dëgg la man in tansurullaha yansurkum sax laa amoon waaye bii xale bi bokkal na fekk na ma ci muy waxtaan bu xóot boo xam ne duhut yëpp lañuy ñuy nettali bàyyi nettali ko am na tontu boo xam ne bi mu tontoo Abdoulaye Abdoul Hadj Abdoulaye Abdoul Hadj daf koo tunqoom xam nga bàyyi ba mu tolloo ci ñu man koo tunqoom xam nga ne boobu tuuti na mu ne daf maa tunqoom wax suma bàyyi wax joo xam ne duma ko wax léegi mu nekk koo xam ne ku nangu woon ñi yar ko la parce bu fekkee yow li ngay seet rek mooy bàyyi bi nga xam ne xat tëmma fatixe inde mahdi wa qad ana jamiu bi tax taxta qadaa yi loolu yow mënoo koo roy diw mënu koo roy sàmm mënu koo roy demb mënu ko roy su ma fatixu mat na fekk maa ngi ci lali ndaw góori xay bi yëpp nekk ci ma doon atte moom boo demee ba nekk waxambaaneem toyam maa am suma waxtu bopp xanaa lu ma defal ma des ko ci jàng lu ma a am jox ko ko te xam naa ne boobu soxlawu ko xam nga kooku topp na bàyyam topp mat sëkk boo toppee sëriñ nag kooku baayam du bàyyi rek baayam sëriñ la bu boobaa li mu am yëpp danga ko am noonu la baaxee woon nangul ay magam nangul ay dëkkandooram ba nga xam ne ku ko xam rekk xam na ci moom baax njàng yit dafa nangu jàng façon boo xam ne ku ko nangoo jàng doo do bàyyi waaye da nga dara bàyyi daana nettali bu nit di tari alxuraan bu ko waxaat nit ñi dañuy ree sax ba mu daan nekk ci tooli baayam di jàng alxuraan ba pël bi romb ko ci suba mu ngi wax ci ngoon mu ngi wax mu nekk gone gi la yaa bëri wax ci suba yaa ngi wax ci ngoon yaa ngi wax gone gi la looy wax bu ko waxaat nit ñi dañuy ree waaye boo demee ba xam lim doon jàngale nga xam ne dars la doon joxe mooy lim la bëgg a wax mooy Cheikh Ibrahim mii nga gis nga xam ne xujjatul islaam la nga xam ne xutbu la nga xam ne wara al aqwaal ci la nekk jàng na sax alquran bañ seedee ko bari wax jàng na alquran ba ku xamul li muy wax seedee ku bari wax kon nga xam ne sonn na ci mu jàng xam-xam bii ñuy tëral di jàng dafa wax benn leetar mu ko bind Mouhamed Saïd ibnu Cheikh Ahmedou ibnu Cheikh Mouhamed Hafiz di ko wax ne ko al ilma taalaatuhu kasiran ne ko xam-xam dama koo jàng lu bëri fuqahaa yi li ñu wax jàng naa ko ñi nga xam ne ci ñoom xam nañ xaqiqa jàng naa ko ñi nga xam ne xamuñ ci xaqiqa di weddi sax cheikhu tijaani li ñu wax jàng naa ko te xaw ma cheikhu tijaani li ñu war a weddi ci moom ne ko maa ngi lay wax ne daanaka mën naa wax ne amul benn këyit buñ taalif ci tariqa tijaan bii lu may suma bàyyi indi na ko waaye man tim jàng naa ko bàyyi ju am ittee ngi noonu bàyyi ju baax a ngi noonu waaye doom ju baax a ngi noonu si daf daan jàng guddi lëmm jàng na guddi ba sondeelam jeex mu génn di ut sondeel baayam gis ko ci guddi gi muy génn baayam ne kii kan la xanaa du ibra yaakaaroo yaaket mu ne ko suma sondeel moo jeexoon may ut sondeel mu ne loolu laa mën a dégg sama maam asta daana nettali day wax ne bàyyi daan nañ ko taalal sondeel ci commencement yi guddi muy jàng ba mu jeex ñi taalal ko beneen muy jàng ba mu jeex ñi taalal ko beneen buy xaaj ñu noddu fajar te mag ñoom dañ daa wax ne ñetti sondeel mooy guddi kon kooku danga gis ne dafa jàng lool jàng lool la def fekk boobu it mu am may yàlla ndax duy fàtte moom sëñ Yaxya li moom wax ne bàyyi ko wax ne ko ñett du may dal du may fàtte du may xiif du may gémmantu duma ma fàtte du ma xiif duma ma gémmantu mu ne ko léeg-léeg nag nit dana ma wax dara ma ne ah dama fàtte woon ci lu ma dul def la te aw ma ndigal yi wax déeréet ma ne dama fàtte woon waaye du may fàtte moo tax léeg-léeg mu bind kenn di wax ne fàttali ma nangam boo nekkee nit ñi force nga nit nit lu nit ñi mën laa àttan moo tax may yàlla gu rëy mu ngi noonu waaye itam góorgóorlu gu rëy moo ko jàng naa lépp li ñuy jàngale ci jamonoom li ci laaj tëralu ku gaaw a bàyyi tëralu la bàyyi na lu fekk baayam a ngi dund ndax téere yu bari dafay wax ne daf daan wax ne gisut ci li ñuy jàng ay tëggin yu bees rek la xam nga ku nangoo jàng noonu te dooy fàtte ku nangoo jàng noonu te dooy fàtte pour nga am xam-xam dana yomb bul ko gëm bul nekk taalibeem waaye bëggal xam-xam rek jàng téere bàyyi seet ndax du la neex bul ko gëm bul nekk taalibeem waaye bëggal xam-xam rek jàng téereem seet ndax du la neex nit bind na téere pour weddi bàyyi weddi Cheikhu Tidiane mahrum la muy taayiru may gëri téereem boobu ba mu demee ba ca biir mu indi ci téere bu bàyyi taalif ci xam-xami góor yi su rek tuddee ko sirrul akbar ba muy wax ci téere bi di commenter téere bi dafa wax ne laqad barhana Cheikh Ibrahim xaqan bi annahu sayidul aarifina fi asrihi mu ne dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima indi na argument yu wér ne mooy sangi aarifin yépp ci jamonoom te mu ne loolu kat boroom xam-xam yi tariqa bi ci jamonoom yépp nangul nañ ko loolu kuy weddi moom la baati dëgg boobu rotee ci làmmiñam mu wax ko baat boobu nag dafa mujj daane yeneen yi mu waxoon yépp ndax am na ñaar yoo xam ne duñ mën a ànd di daani laa yejtamiaani kon xam nañ ne jàng na bu baax baayam moo ko jox tariqa comme ni ma waxe yar ko ci tariqa bi mu tudd loolu ci ay téeréem waaye baayam jox ko lijaasa ci dundam Maam Alaaji bi muy génn àddina fekkul mu jox baay lijaasa waaye fekk na am na shérif bu ñuy wax Mouhamed Sakhir Mouhamed Mahmoudul Mouhamed Sakhir Tichiti maamalaa ji daf ko joxoon lijaasa jox ko ndigal ci mbooleem lijaasa yi am wax ko ne ko lim ci jublu mooy gannaawam mu jox bàyyi moom ndigal waaye ba bàyyi di gën a ndaw maamalaa ji ay niti wax nañ ko ay yoon ne ko Ibrahima mii soxlawul ñi koy taqdim ndax yàlla mi nga xam ne mooy aji taqdim ji jiital na ko ba pare waaye il faut mu jaar fi yoon mi mu war a jaar ndax sëriñ si dañuy wax ne lawla sënadu la qaala man shaa ma shaa bu taxutoon ak wéeruwaay ku nekk rek dafay wax lu ko neex te ci yoon yàlla ku nekk am nga baay nit nit ki amee baay ñii ci yoon yàlla it noonu la nit ki amee baay yi nga xam ne nii moo lay jokkale ci ci ci xadara bi moo tax at bi ma walaa ji génn àddina muy aama shamsin at boobu la tiiti boobu bam ñëwee ci la jox baay lijaasaam bu njëkk ci tariqa tijaan yi fekk na mu ngi gëstu bu baax di bindanteeg mbooleem kàngaami tariqa bi fu ñu mën a nekk gannaaw loolu ba mu ci tegee juróomi at am na ama shamsin mooy 1922 ba mu tegee ba mu ci tegee juróomi at la ko Abdoulaye Wuld Alxaaj jox lijaas Abdoulaye Wuld Alxaaj mooy Baay Mouhamed El Mishri moom dafa jàppoon ne faydu bi Cheikh Ahmed Tidiane doon wax moom mooy boromam waaye ba mu demee ba xam ne du borom muy bëril tukkeem ba mu ñëwee ci kër maam Alaaji Abdoulaye ba mu dajeeg Baye jaar naa moom fu sori ba bàyyi dafa wax ci Abdoulaye wulul Xaaj moom mu ne moom mooy sukkandikuwaayam ci xam-xami góor ñi Baye mas naa toll ci xaal foo xam ne xaalam bi amul kenn kum ci wax waaye abdullah ibnul xaaj moomu la bind leetar nekk kuntu za wujudin wa ilmin wa jaahin wa maalin wa xasabin wa ilmin wa jaahin fa asaabaha icsaarun fiihi naarun fa xtaraqat inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuna fala rajaat mu ne ko nekkoon naa borom daraja borom xam-xam borom alal borom askan ngelaw boo xam ne dafa ànd ak safara ñëw upp ko mu dem te yàlla bu mu delsi loolu mooy leetar bi di ci atam ñaareel ci faydu bi ci la Seydi Ali bind leetar boobu déggee ko ci baay te bi mu ko bindee ba pare moom it dafa wax ne leetar bi maa ngi ko bind ci teewaayu Cheikhu Tidiane radiallahu anhu nga xam ne baay teel naa maye lu tëgóor ñi teel naa maye li tëgóor ñi am na ku ñuy wax Mouhamadul Kabir lu Abbas mooy bàyyi mu Ahmad Mahmoud Kors bi nga xam ne ñu bari ñuy ndëkk na fii xam nañ ko kooku jox na bàyyi lijaas danaa nettali dara ci mu Mouhamadul Kabir boobu ndax dama koy méngaleeg li Cheikhu Tidiane méngale woon ak feeñ ak faydu bi Cheikhu Tidiane dafa waxoon ne faydu dana feeñ te buy feeñ dafay fekk nit ñi dañuy nekk ci xat-xat ak jafe-jafe waaye bu feeñee nit ñi dañuy dugg ci tariqa bi ay kuréy kure kuréy kure damay wax ne jafe-jafe boobu Cheikh Tidiane doon wax mën naa wax ne demoon na sax ba àgg ci rey nit nit ku naagu ci bëgg xam yàlla naagu ci ba loolu bëgg koo rey Mouhamadul Kabir moom ma tudd nga xam ne bokk na ci ñu jox bàyyi lijaasa boroom xam-xam la ci muqaddame tariqa bi ci Mauritanie jamonoom ñu xam la dafa daan ñëw ne euh, Sénégal kër kilifa yëpp ko xam Cheikh Ahmadou Bamba Haj Malick Cheikh Ahmadou Bamba sax dafa demoon ba wax taalibeem yi ne baydaani yu bi nga xam ne semine la dafa amoon yaram ne am yaram ki bu ñëwee ngeen fëgg ma waxtu bu ñëwaan rek dañ naan ko semine semine bu nekkee ci wirdo sax dana ubbeeku mas naa yoonam bu mujj senegal dafa ñëw jaar si Haj Malick bi muy tàggook moom taalibe yi jël bagaase am yi ko si xaaj Malick nangu bagage bi teg en ko sëñ Abdou Mouhamadul Kabir xool sëñ Abdou ne si xaaj Malick xanaa dangaa bëgg sa doom ji gudd fan xam nga waxoon tuutoon rek moo tax mbaax mbaax mbaax goo gis dañ koo faaw ci lu gën a bari yàlla nag danay maye waaye maye yàlla xam nga kenn du ko xaar ndax fii New York gi kenn nekk fi di wax ne man de mën naa toog ba week bi jaaral ma four thousand dollars jarul may góorgóorlu comme gaañ ci nekk dangay ngay liggéey liggéey mooy yoon bi moo tax mbaax mag ñi dañ ko fàggu ba sonn li ma bëgg a wax àggaguma ci mu ñëw ba Kawlax fekk mamalaa ji génn àddina ci yoonam googu gis doomam yi gis baay dellu Mauritanie ba mu demee di waxtaan ak doomam ju jigéen nga xam ne mooy jur Mouhamed Daawul Seyid soxna su baax la di ko wax maam alaaji abdoulaye ak ay ngëneelam ak gi baaxi doomam doom yi am nañ xam-xam doomam ju mag ji borom xam-xam la ku jeexu cheikhu tijaani la waaye am na doomam ju ndaw joo xam ne ku ñuy wax ibrahim lam yejudi zamanu bi mislihi muy fecc jamono mas tamayee ku ku mel ni jamono mas tamayee ku mel ni ah doomam ji mu ngi déglu waxtaan boobu doomam jooju nag amoon yaakaar ne moom yàlla dana ko xamee ci baayam baayam génn àddina génn àddina bu gaaw koo xam ne xissa bu gudd la du ma ko nettali mu am nag njàqare goo xam ne njàqare googu daf ko doon rey mu ne mu tëdd gis rooxam gi ni muy génnee ci ron tànkam yi di éeg di éeg di éeg ba mu gis mu agsi ci ŋaamam yi mu ne mu fàttaliku li baayam doon wax ci doomi alaaji Abdoulaye jooju nga xam ne jamono ma samaye ku mel ni moom mbëggee li baay aju ci xolam mbëggeel googu moo duggaat jañ rooxam gi ci yaramam yi mu de mu dekki mu dekki ba mujj ba ba doomam mujj ñëw ci baay moom mu mujj ñëw ci baay ba léegi doomam a ngi foofu bokk na ci borom xam-xam yi gën a mag bind na téere ci baay bu yàggut tuddee ko min axbaari Cheikh Ibrahim Niass daf ko tuddee lenn ci xabaari Cheikh Ibrahim moo tax xam naa ne waxtaan wi du dund Cheikh Ibrahim lenn rek la ci ma ne kon jafe-jafe yi nga xam ne waxoon nañ ko feeñ ak faydu jafe-jafe maanaa boobu gis nañ ko foofu gis nañ muqaddam bu ànd ak sëriñam ba dem delloo ko ay kurusam toog ngir naagu ba bàyyi feeñee yàlla may ko mu àgg ci yàlla ci loxoom dundam dund bu barke la lim amee ku ko gaaw def ci ñi ko topp la ajam gu njëkk bàyyi ajam gu njëkk ban at la 1937 xam nga boobu teel na lool ak ooteem bi bi bi commencé ndax oote bi 1930 ak 29 30 ci la commencé 37 muy génn di dem aji wasiya bi mu génn bi muy dem aji dafa wax ne bu ma dee ci aj gi te xam ne ne du dee ci aj gi lu tax ma ne xam ne dee ci aj gi moo ko wax ndax bindoon na benn leetar wax ne ay taalibeem yi ko doon tiital ay pexe yu ñuy gis mu ne leen bu leen ma tiital yàlla jox na ma ci dund loo xam ne moo ëpp suma dund bàyyi te loolu law laa kawni muraadallahi laa uhibbuhu lima fi hadihi daari min al akdaari bu taxutoon ak maay ki yàlla namm pour jubal nit ñi soxlawuma dund bu gudd boobu ndax kër ak àddina dafa nax waaye jarul ngeen may ragalal man dégg naa ci làmmiñu ku dul wax nar ne mbindeef mënalu ma dara ci beneen leetar sax daf ne leen ñaan mënu ci man dara pexe mënu ci man dara njabar mënu ci man dara seet leen melow yàlla yàlla yàllaa fi nekk turam wi ak melom wi sabqat jilaani moo wax ne walillahi xalfa al ismi wal wasfi madharu wa anhu uyunu al alamina hawajiu sabqat daf ne yàlla am na ci gannaaw tur wi ak melo yi am na feeñuwaay boo xam ne bët yi nelaw nañ ci bàyyi na ko fekk feeñuwaay ak tur fekk tur ak melo mënuñ ci feeñuwaay dara mbindeef mënuñ ci ma dara kon xamoon na ne yàlla jox na ko ci dund lu ëpp li muy wax noonu bu ma dee ci aj gi kon xam ne dee ci aj gi waaye jullit la boo xam ne yëfi jullit rek lay def waaye am na leneen lu mu leen bëgg a jàngal bu ma dee ci aj gi bàyyi naa fi ñoo xam ne lépp lu ngeen doon ut ci man man ngeen koo ut ci ñoom mu ne mooy ñi nga xam ne jox naa leen lijaaza litlaaq ci sama bind wala sama bind secrétaire Seydi Ali Cissé te mu ne looloo gën a bëri nga seet nag ku dekk ci oote boo xam ne juróom-ñeenti at rek def nga ci nit ñi bay xamal ñi ngay bàyyi ci seen gannaaw ne lu ngeen di ut rek ñii mën nañ leen koo jox kooku sawara bi mu def néew na nga gis ko jàngale bi mu jàngale arab ci Kossy ci diggante boobu ñi man fi arab ci diggante boo xam ne boo seetee tarjama Kashful Ilbaas Seydi Ali moo ko bind te arab yi mu jàng yëpp ci bàyyi la ko jàngee te boobu soreeguñu fenn nga gis araab yooyu dangay dem ci université yëpp ba delsi manoo ci dara xéem rek nga ci man noonu la madrasaam madrasaam noonu la noonu la mel noonu la defee lim amee def ko ci ñim nekk ba sant yàlla wa ashkuru rabban alhama al abda rushdahu wa asgaru atbaa'i bari'u min ashirki feneen mu ne wa ashkuru rab wa ashkuru rabbi laysa sirri aaqiran wa asgaru atbaa'i unila fanaa wa zalika min xubbi rasuli wa zikrihi wa sardi lahu lamdaaxa xussu liwaa bàyyi na maa ngi sant borom borom rek la wax pour wan ne borom bu màgg la borom bi nga xam ne moo yënkeewal jaam bi njubam mu ne ki gën a ndaw ci samay topp dañ ne ci bokkaale yàlla nañ bàyyi suñ xel nag ci ku gën a ndaw ci samay topp ku topp nit mooy kii gi nga xam ne daf koo topp muy def muy def muy baax muy baax laaya ji alaaji karaw eh, kii jàng omar jàng fii omar mi fa man tabiani fa innahu nii wa man asaani fa innaka xafuru rahim ku ma topp ci mën nga bokk ku ma moy yow yàlla nag yaa moom sa àjjana ak sa safara ku baale kan nga bu la neexee nga baal nit ñi waaye njëriñal njëriñal bëgg leen mooy nga topp leen mu ne ku gën a ndaw ci samay topp dañ ne ci bokkaale yàlla feneen mu ne maa ngi sant sama borom bi nga xam ne sama mbóot man jërmeelut ba nga xam ne ki gën a ndaw ci samay taalibe may nañ ko mu jeex ci yàlla ndax jaam bi feeg jeexut ci yàlla force mu bokkaale yàlla Cheikh Tidiane dafay wax ne ida kaana hunaka muwaxadun wa muwaxidun fa samma isnaani ayna tawxidu feet ku ñuy weetal ak ki koy weetal mu fi ñaarang fi kon ana tawxid ana wéetal yàlla moo tax yoon wi ku ci génnee jeex ci yàlla desexoo ci yoon wi dara moo tax bàyyi ba mu nekkee Soudan dafa def xutba nettali waxi Cheikh Ahmed Tidiane Cheikhu Tidiane dafa wax ne dufiatu min alxadrati alilahiya dafaatan waxidatan fa saara kulli juz'i wa awali axiri wa axiri awali fa sirtu law suiltu an miati alfi masalatin la ajabtu anha bi jawaabin waaxidin bàyyi teg cheikh tidiane qaala hada la ma dañ maa jañ ci yàlla bi jañiñ boo xam ne sama lépp mujj nekk sama lenn sama lenn di sama lépp sama njëlbeen di sama mujj sama mujj sama njëlbeen ma mujj toll ci xaal boo xam ne bu ma laajoon téeméeri junney laaj Cheikh Tidiane mu ne benn benn tontu rek laa ko amal bàyyi teg ci wax ji ne bu Cheikhu Tidiane waxutoon lii du dosuma sëriñ moo tax ku nekk ci yoon wi di dàq tawxiidu ahlillaahi te moom mooy jeex ci yàlla kon yow deseewuloo ci yoon woowu dara baay wax naa ne ajam gu njëkk mooy 1937 danaa tudd xajam yi yëpp fii ki ko njëkk def ci téere mooy Mouhamadulaay wul Seyd moomu waaye man maa ko tombeleeg at bu jot lum tolloog ci ati tubaab yi 1355 la bàyyi njëkk aji boobu mu ngi nekk 1937 te weeru weeru aji itam mu ngi nekkoon février février moo doon weeru xaj ci at boobu ajam googu ajam yépp barke na waaye aj yooyu aj googu mooy aj yi nga xam ne moo ubbi dëkk yi wax na aj gi ci téeréem rexlal xijaaziya nettali ji fa jaar lam def ci sunna yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bépp mawqif bu mu taxaw boo xam ne am na ci lu ci sunna wax la sunna wax lay def mu ne bu génnee ci loolu nag mu ngi ñaan rek lu mu soxla ak di jàng salaatul fatihi bu daan wër salaatul fatihi lay ñaan benn wër bu nekk dana ci jàng téeméeri salaatul fatihi ak ñaar fukk nga xam ne mu ngi ko doon tartil kon aj googu taarix la ndax kilifa yu bari bàyyi ci aj googu la dajeek ñoom ci njëkk muy dem ci aj googu ci les ziyaare Fass ba mu ñëwee Maroc dem Casa dem ci zaawiya bi nga xam ne moo nekkoon foofu Seyd Ali ibn Muhammad Suusi nga xam ne moo doon muqaddam zaawiya bi foofu ba bàyyi toogee moom waxtaan ak moom daf ne ko naka jekk Seyd Xuseynul Ifrayini daf doon wax ne assudaanu maadanul wilaaya ne ko réewi nit ñu ñun ñi mooy mbell wilaayatu te Seydi Ahmadu Sukayri ju wax na ma ne yow yaay aalimu Soudan yow yaay borom xam-xami Soudan bi mu dajeeg si Tayib Sufyaani nga xam ne doomi Muhammad doomi si Tayib Sufyaani bi nga xam ne xalifa Cheikh Ahmed mu jox ko lijaase ci lim am yépp ba pare wax ko ne ko ñeenti ñii muy Cherif Mouhamadul Ghali Cherif Mouhamadul Ghali koo xamul ci yéen mooy moo doon Serigne Cheikh Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu Cheikh mi nga xam ne moo indi tariqa bi ji Sénégal ba Nigeria ci Afrique gi yépp ki ko jox tariqa mooy Abdou Karim Naqil Abdou Karim Naqil Seyd Mawlud Fall moo ko jox Seyd Mawlud Fall Cheikh Mouhamadul Hafiz Shingiiti moo ko jox mooy maami Mariam Male waaye ay sëtam ay doomam mujj nañ mujj ñëw topp bàyyi ngir la ko yàlla feeñal ci moom Sëriñ Mouhamadul Xaali moomu ci la Cheikh Omar mujj jàppaat ndax tasee naa moom ci xaramay ni Makka ak Medina am ak moom ñetti at ba kooku ne Cheikh Omar yow daal duhuloo rek muqaddam ci tariqa bi waaye xalifa Cheikh Ahmed Tidiane nga radiallahu anhu si tayib sufyaan yi ne baay Chérif Mouhamadul Xaali ak Mawlaay Abi Nasr taalibi Cheikh Tidiane la boo xam ne commencement bi sax ba mu daan ñëw Cheikh Tidiane pour fekkee rek di lekk ak moom moo ko daan indi mu dem ba àgg ci xilaafa bay wax na Seydi Ali mi dem na bàyyi ma may bonde man kenn ci sajaadaab xilaafatu mu ne ko ak Abdul Wahab na Ahmar ak Sidi Tayib Sufiyaani mu ne ko ñeenti ñii ku ci nekk am na ci Cheikh Tidiane loo xam ne moromam amu ko te ñoom ñëpp ku ci nekk dafa wax ne lim am li am yépp ñoom dajee nañ ko ci kën suuf si te kën suuf si nee na lim am dajee na ko ci man man nag jaam bu xeebu laa mënumaa wax li kën suuf si wax waaye wax naa ne li ma am yépp tam ba tey mu ngi ci yow nga xam ne fu mu jaar rek jël fa la nga xam ne mooy njëriñ parce que ku ko am bu boobaa dootoo dootoo sonn ci tukkeem boobu dem na ci Tanja ba tey ci Maroc la mu dajee faak ay góor yu baax ci tariqa bi wan leen jawaahirul maani bi mu amee ci xatt sidaali xaraasimi ak li mu amee ci karaw yi cheikhu ahmed tidiane ñoom ñi ne ko ñun de dañ daan gis góor ñu baax waaye dañ leen a gëj a gis ba tudd ko ne ko am na kilifa gu wàlliyu bu mag bu fi daan bu fi mas a jaar muy alxaaji abdoulaye ndax xam nga ko bàyyi na kooku mooy sama baay xam ne ma walaay jeexitam itam àgg na fu bëri mu dem ba sofor fa la jëlee fa la amee eti cheikh ahmed tidiane bi mu nga xam ne mu ngi ciy wax bàyyi ngi wax boo demee ci téeréem bi muy wax jamul jawaami da nga fekk xasida boobu muy wax ne bushraaya xustu alladi qad azza madrakuhu asa alimaami tijaani sirtu amlikuhu wa gayru zalika mimma lastu alfaduhu lakinani xustu sirran azza madrakuhu yaa man yuridu tijaani ay musaafaxatan fi bayti barhama tulfiha mukaafaxatan walam aqul fanadan wala mubalagatan fa in aradta fasalniha muwaajahatan bi maqbadi alcheikhi massik tiimu saafaxata bi bàyyi ba mu amee xet woowu daf ne mbégte ñeexal na ma am naa li nga xam ne jafe na am ko jafe na lan laa am mooy xetu Cheikh Ahmed Tidiane mujj naa ko moom ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne duma leen tudd waaye nag am naa mbóot yu rëy mu ne yow mi bëgg gis Cheikh Ahmed Tidiane bugg koo nuyu mu ne ci néeg barxaama ngay amee loolu loolu nag théorie la bu fekkee maanaa zaahir bi mu mujjee baati mun nga bu dégg ba tey bu dégg loolu mu ne boo buggee nuyu Cheikh Ahmed Tidiane xeet waa ngi nii rek téyel ci fi mu daan téye nuyu nga ko fekk am na leneen lu nekk ci biir xeet woowu ba tey jii mu nga ca mu ngi ci nekk sëñ daam bayti yooyu sax ñu ngi ko bind ci kaw kii bu ñu ko bindee te bàyyi day wax ne ci luñ ko jublul rek loolu faju ci ci tukkeem boobu la ko amee nga xam ne kon tukki bu barkeel mu dem ci li ziyaare Cheikh Tidiane radiallahu anhu ziyaare bu am xaal boo xam ne jooy na foofu jooy yoo xam ne mu ne muñ ji nit ñi dañuy ñëw di jël ronxañam yi di ci barkeelu mag mu dem ni bàyyi lu koy jooyloo te ci jooy rek la dëkkoon jooy rek ci la dëkkoon ba kaytu afnaytu dumua famal bukaa siwa xaalatin lil qalbi min xarqati shawqi boobu ci tagg yonent bi la koy waxee jooy naa ba jeexal ba jeexal ronkañ yi te jooy nag du dara lu may lakki nag xol ngir lakka nag cofeel ndax ki sopp lim soppu lu ko ci doy du ko ci am mukk loolu tax force xol bi di lakk waxtu nekk ci tukkeem boobu ci la dem dina mun a waral la bàyyi njëkk dem ci ajam gi am na fukki ñaar fukki fan ak benn ci ci dina door a dem mag ñaar fan ak benn yooyu tudd na ko ci reela xijaaziya waaye daf daan dem ci biir woyam yi sax di ko fàttaliku ba ci ba ci dawaawin si te mu ngi koy fàttaliku bi tayibi bi jannati taybatin wa tizkaaruha lil qalbi maran tayibi ayaamin la ko tënkee tayibu ayaamin mooy fan yu teey waaye tayibu boo ko seetee du mooy ñaar fukk ak benn ñaar fukk fan ak benn la am foofu foofa ci la dajeeg amir kënu bi nga xam ne moo njëkk a jàpp ci moom nga xam ne mooy ubbi yooni Nigeria ndax fekk na dégg ngeen ko ba sonn duma jaaraat ci yu bari waaye ci la bees du ci bàyyi moo ñim ànd ak ñaan ko lijaasa mu may leen lijaasa bàyyi mu ne amir bi ànd ak moom di ko xidma ci ajam gi ñim àndoon ak ci aj gi nag ma abdu ñang la ak ku ñëw Aboubacar Sànqare aj gu bëri karaama la ndax bi muy dem mu ne magam mu ne suma ma wàccee ki nga xam ne maa koy wàccee suma ma wàcc waaye bàyyi bàyyi ku yarul la ku baax la boobu baat boobu da foog lu tuuti la waaye maa ko wax bàyyi ku baax la mu ne alaaj baakar daf koo dénk ne ko boo gisee lu la jaaxal rek danga gis sa baay baay mu ne ñu dugg ci bato bi xam nga ku miinut bato boo duggee mën na laa indil ay miir ak yu mel noonu mu ne mu commencé am dawaxaam di miir mu gis baayam di Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu mu ne ma walaa ji saabaka ko nii dugalanteeg moom loxo mu saabaka sax siru la ci siru euh, gaañ yi gaañ yi dañ koy dañ koy wax xam naa am na ñu ko xam mu ne baayam ne ko jàngal inna allaha la yastahi ba ci ways naa ko baay mu ne ma jàng ba ci wa ida laqu ba ci ba ci xisib ba mu ne bàyyam ne ko loola alaaji alaaji Bakar waxoon na la nangam loolu duur ay nelaw duur ay ay gént loolu ci aj googu la amee boobu àggagut sax fa mu jëm ma ne ci Medina la beesalee amir Kano mu topp ko nekk xaadimam te bala ngaa xam ñooñu pour ñu nekk xaadimi nit lan lay tekki mooy nga dem ba gis leen ndax kenn du leen nuyu sax koo xam ne booy génn lu ñuy wax suuf yarul gaynde dëggal rënkee dëdee yàlla na yàlla nga fi yàgg akramakallaahu dina ñaanal te defagoo dara kooku la bàyyi njëkk a def taalib am na ku ñuy wax ali ibn abdullahi tayib nga xam ne sët la ci imaamu Shafii ci aj googu la ko bàyyi joxee lijaasa moom ci tariqa bi alil kutubi ba tey ab shérif ci aj googu la ko bàyyi joxee tari eh, lijaasa am na ku muy tasee ku ñuy wax Ahmad yi nga xam ne moom dafa wax bàyyi ne ko ndax duma la wax suma gént gi nga bind ko benn wàllu bu mag la ne ko damaa gént yaa ngi séddale masharib yëpp naan waay yëpp yaa ngi koy séddale mu ne ko li li loolu namm nag mooy yow yaay gi nga xam ne léem nga naanuwaay yëpp ubbi nañ ci kaaba gi mu dugg ci kaaba gi Ahmed Sey bi nga xam ne moo doon day garde kaaba gi ne ko lu tax doo xaar ba guddi nga ñëw ma ubbil la nga xam ne dafay féex mu dee saat foofu mu ubbil ko ci ajam gu njëkk mu daje kenn ci ruknul yamaani bokkut ak xajar al aswad bàyyi na waa ji waaw yow yaa ngi ci réew mu barke mii ñoo fi taseeg nag ci ñu baax waa ji ne ko muñ daal bi ma ñëwee kooku waa Faas la kooku ne ko man daal bi ma ñëwee damaa taseeg fii benn waay boo xam ne min ahlil kashf la ci borom kashf yi la waaye daf ma wax ne bi mu duggee ci xaram bi rek xaal daf koo jàpp mu am xay buuba mu fàdd tuuti bi mu fàddoo mu gis xadir gis yonent bi gis abubakar siddiq radiallahu anhu yonent bi ne ko at mii alxaws dana agsi borom jamono dana agsi te yàlla dana baal ñi taxaw ci mawqif bi yépp ngir sababi kooku waa ji nettali bàyyi loolu bàyyi na ko yow nag waa ji ne bàyyi yow nag koo daje bàyyi na ko yow laa daje dégg nga wax ci ajam googu yàlla may na ko ci mu wër kaaba gi mu ne ci diggante tusubaar ak tàkkusaan te lu ñu wax dëgg la ñu ko xam xam ku ko xamut gëm ku ma xaama ida lam tara alhilaala fa sallim li unaasin ra'awhu bil absaari boo gisul weer wi nangulal ñi ko gis sëriñ si dañuy wax ne maqaama boo weddi ñi xañ la ko moo tax weddi maqaama góor ñi jar naa moytu yàlla dafa yàlla ku yaatu la ku mën a maye bàyyi mu ne wër na kaaba gi diggante tusubaar ak tàkkusaan ci jamono aj te benn nit neewu fa xam nga loolu koo xam ne sa xel rek ngay jëfandikoo mënuloo koo dégg waaye bokk na ci li ko yàlla defal ci ajam googu ba muy ñib si ci ajam googu ci la dem chataat chataat foofu la si Ahmad Sukayri ja nekkoon nekk fa qaadi bàyyi daan na moom ca teel daan na bindanteeg moom ci teel sëriñ bu am itte la ku yàgg ut lu baax la ba muy nekk lu ndaw lay sàmmoonteeg yooni góor ñi imaam wax na ma ne bàyyi wax na ko ne ba ma nekkee xale bu xale yi daan foo sax damay ragal a fo ngir rek foog ne léegi tey mu dox suma digganteeg wilaayatu ma ne ci yoonam boobu ci la dem chataat dajeeg si Ahmed Sukari ji fekk nañu xamante bu yàgg ci ay bindante yi bindante nañ lu bari téere maa ko amee moo xam ne ay leetara rek yu Sukayri ji bind bàyyi yoo xam ne ci commencement ba mu koy diggal mu koy wax ni dafa nii baal li baal li waaye ca mujj ga leetar boo ubbi mu ngi koy commencé ila sirril xatmi ila fassil xatmi wa sirril katmi ki nga xam ne moom mooy mbóoti xatmiyatu fekkee Cheikhu Tijaani jaaru la mu ne ko mooy fass bi te wax na ko ko ci wéy shahidtu lakum fathan mubinan bi ma lakum bihi lxaqu min bayni albariyati qad xussa waristaani cheikh tijaani xilaafatan wa inni lakum fiha anussu lakum nassa wa inni ara cheikh tijaani xaataman wa anta alladi qad sirta fi lxaatami lfasl Sukayri Ja wax loolu Sukayri Ja ku yàlla may la ba mu nekkee lu ndaw la commencé def tasarruf ba mu nekkee lu ndaw la commencé def tasarruf am xam-xami góor ñi waaw danga gis téere yu rëy yoo xam ne ci gént la ko jàngee moom ci nelaw ba bàyyi di dajeeg moom ci ajam googu ba muy dëpp ci aj bàyyi mu ne ci guddik tam xaret la la fanaan ak sukkari ji ci la ko jox sax xadiisul awaliya boobu nga xam ne ci bés yooyu lañ ko jox nee nañ bàyyi nee na boobu gën jàngoo moo ko ci bàyyi ma ko dégg lañ def ci guddi googu moog sukkari ji xajut ci ay weer ala ay tixaal ba muy tàggoog sukkari ja ba ko gisee dafa wax ne zaatun min an nuuri tajassadat quluha an nii jëmm joo xam ne ci leer la formé woo ngeen la wax leen loolu ànd ak man sukkari ja wax loolu ñun tim ñu ngi koy waxaat mm-hmm. ba mu toogee moom di wax ak moom di joxar bi ci yëf yi ci pays yi ci mbir yi ci mbóot yi ba muy tàggoo moom di dem su koy ji daf koo xool ne ku lillaahi darru abin wala dëkk bàyyi ji la jur moo baax bàyyi ji la jur moo baax xam nga léeg-léeg da ngay toll foo xam ne dangay ngay gàgg te gàgg boobu tim da danga koy fekk ne moo gën a moo gën a bari wax yi ngay wax noonu yépp danga gis ko noppi fekk noppi boobu moo ëpp wax kàddu da nga gis ko ne ah xam nga ah boobu noonu bu ñu ko doon charaar mën naa dem ñetti band te te te boobu waa ji li mu yëg ci ah bi ba léegi génnagul xanaa loolu la nokkee ci wax jooju loolu yëpp ma ne ci aj googu bi muy dëpp ci aj googu ci la am ba mu dëppee ci ajam googu ba ñëw semaine ci semaine boobu ci la ci la yaayam génn àddina mu wax ne ma ñëw nuyu suma yaay mu ñaanal ma te fekk boobu mu ma gërëm mu ne mu génn àddina te fekk mu ma gërëm seetal baat boobu tim nañ ci bàyyi xel parce que ku am ni bàyyi lu ko yàlla may yëpp waaye mu ngi lay mu ngi mu ngi mu ngi bàyyi ci sa xel ne moom kat yaayam góor-góorlu na ba tàggale ko yaayam fekk mu ngi ko gërëm kon maqaama bi ngay ngay dégg nga xam ne nit ñi dañu foog ne maqaama rek la waaye jëf la tim am na ci jëf yoo xam ne ku nekk ku nekk mën nga cee góor góorgóorlu ku am yaay mën ngaa góorgóorlu ba mu gërëm la loolu danga ci amee dara parce que léeg-léeg dañuy jàng ci baay yoo xam ne dañ koy dañ koy nettali pour sant yàlla waaye am na ci loo ne tim da nga koy nettali yow pour mën nga cee roy am nga yaay góorgóorlu mu gërëm la ndax kii mooy saroyukaay royukaay kii nga jàpp ne kii di saroyukaay te em na ci emuwaayu góor ñi gis nga nan la def ak waajuram loolu tim dars la boo xam ne dañ ko mën nañ cee mu taarixal ko chumu fii fiihi maatat aïcha wa lam tazal wastal jinaani aïcha kon ma ne aj googu mooy aj gi njëkk li tax may sawar ci tudd aj yépp ñun dañ cee mas di sonn di seet aji bàyyi ñaata la waaw te fañ koy gëstoo yëpp foo dem da gis ne am na bu des boo ma indiloon nangam ma seet xañ na danaa xam ñaata la moo tax buñ ko amee buñ ko xamee dañ ko war a génne niñ njëriñoo ma ne ci la jaar Nigeria kënu ci la jàppee kënu ci la jàppee ci moom mu sabab tukkeem ci Nigeria gannaaw loolu juróom-ñeenti at la door a dem Nigeria ba mu demee Nigeria nag tukki boobu bàyyi moom kenn rek a ànd ba mu ñëwee ne buur bi lay seet gars dañ doon ree sax mu jigi mu bind leetar ñi koy jokkalante ba mu àgg am na koo xam ne Moulaye Souleymane la tudd bokkoon ci ñu ànd ak buur bi ba mu gisee bàyyi ba dem wax ko buur bi keroog lañ ma a gis buur kën muy dox ak tànki neen ak ak boppi neen alaayati xaal am boroom xam-xam yoo xam ne xamante nañu moom foofu ñëw di déglu xam-xamam muy ñoom Maalim Tijaani Ousmane fekk am nañ muqaddam Tijaani boo xam ne Aboubacar ma ji yowaa lañ koy wax borom xam-xam la borom këshfu la boroom may la waaye ñoom bu ñu jugee ci bàyyi ñëw ne ko ah ñun de dañoo demoon seeti xutbu nangam nangam commencement bi moom daf doon ree bu gaa yi ñëwee mu ne waaw ana suñ seen xutbu bi waaye mu tëdd gis gént goo xam ne gis yonent bi gis Cheikhu Tijaani mu gis leer goo xam ne mu ngi jokkoo ci baay yonent bi jox bàyyi ndigal muy jiite julli ci la xam ne kii yonent ko yonentu ko samp ba mu eewoo def ne ana suñ xutbu bi mu eewu jël oto pour dem laajte ba mu demee fekk bés boobu ci la bàyyi jógee foofu mu ànd ak Cheikhu Atiqu jël nañ seen oto dem ba Mali seen oto bi paan ñi gis ne léegi daal gàmmu jege si na nañ dëpp ba gàmmu paase ñi door a ñëwaat moom ci noonu la génnee àddina te amut te mujj mujj dajeeg bàyyi waaye ñoom maalam Tidiane Ousmane ñoom maalam Sani Kafanka ak ñeneen ñeneen ak ñeneen xam ne maalam ti maalam Sani Kafanka mooy wax loo xam ne doy nañ yaakaar ndax dafa wax ne tax biir tahbibu qutbil asri di siyaada ila alwara min azami alibada fexe ba jaam yi bëgg bàyyi mu ne ci jaamu yàlla yi gën a mag la boobu te koo xam rek bëgg ko ndax nit ñi lu baax rek lañ bëgg nit ñi baax lañ bëgg lu tax bàyyi wax ne kenn bañu nit ñëpp lu baax rek lañ bëgg bàyyi xam rek da ko bëgg moo tax aj googu lu riche dama ne toog na fukki at ak juróom nag door a ajiyaat muy 1370 mu tolloog 1951 mu bàyyi benn at at ba ca tegu mu dem ajiyaat muy 1953 54 mu aji 55 tëb

nga xam ne kon aji na lu bëri lu tax nag aji yëpp lan la xam nga aj benn yoon rek la war waaye bàyyi daf doon aji pour utu mbindéef yi bil xajji naiban an il xalaaiqi mu ne maa ngi aji pour utu mbindéef yi loolu mooy lan aj war na ku nekk benn yoon ci sa dund waaye mbooloo jullit ñi yëpp nag war na leen ñi dundal néegam yàlla bi at bu jot bu jullit yëpp toogoon benn at boo xam ne kenn ajiwut jullit yëpp danañ bàkkaar bàyyi ngi fegal jullit ñi bàkkaar waaye tim meññeeti jaam yi foofu lañuy ñuy dajee foofa la daan dajee ku ku ñu war a defar rek mu defar la moo tax ñi bàyyi defar ñëpp ñëpp xamuñ leen bët bu set nga gis ku bees moo tax benn sudaane tagg ko ci rexla sudaane mi ne wa huwa alladi hadda al amaakina kullaha xatta al muqaddasa kaabat al xalaaqi mu ne kii mooy ki nga xam ne place yëpp gësam na leen ba ci kaaba gu tedd googu sax bu fa ñëwaat rek muy muy rëngi-rëngi i ngi nettali mu ne benn waaye daf ko mas wax saoudia ne ko Cheikh Ibrahima moom borom la waaye daal lu tax wanutoon taalibe mii ne moom kaaba gee ko ëpp solo ndax bu aj siyaar bu jullee ci hôtel bi taalibe mi kenn du dem ci kaaba gi imaam ne ko yow yaa wax ne kaaba gee ko ëpp solo waaye yonent bi dafa wax ne xormatul mumini akbaru indallahi min xormatil kaabati xormaay ku gëm yàlla rek moo ëpp fa yàlla xormaay kaaba gi simple jullit bu gëm yàlla rek na nag loo xam ci koo xam ne loo xam ci koo xam ne loo xam ci koo xam ne waxal xalaatal looy looy wax kon aji na ba sonn aj yooyu yëpp ay ziyaare yonent bi mu ci biir moo tax dem na foofu lu ëpp yoon wi waaye aj yi lii la ndax booy seet téere mën ngaa jàpp ne am na ñoo xam ne bu ñu ne bàyyi ñaata aj la aj ñi ne la bàyyi ngi wax ne yonent bi ataytuka tisaan summa ashran wa nii innani ataytuka haadi faqbalan laa tarabbasi ñëwal naa la juróom-ñeenti yoon ñëwal la yeneen fukki yoon ñëwal la yoon wii muy ñaar fukk yoon kon nag nangul ma suma yoon yi bul xaar dara nag nangul ma rek kon yoon yi ëpp na ëpp na yooni aj yi place boobu xam na ko boroom xam-xam yi fa daan nekk xam nañ ko rabita alamil islaami xam na ko maa ngi doon maa damaa foroon benn téere rek di ko jàng xaw ma sax ne téere bi luy wax ci bàyyi ngi ma dem ba ci biir ma gis waa ji di wax ne saoudiye wax leen seen borom xam-xam yi bu fekkee xamuñ dara nañ noppi seen xam-xam leeru nañ noppi ndax ñi ngi weddi suufiyanke yi di wax te suufiyanke yi doy na leen seetal ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass zaimu tijaaniya bi garbi Ifriqiya mu ngi noonu suufiyanke la te mu ngi noonu seen mamlaka bi daf koo respecté woon mu nekk odwu ci rabita bi Faysal respecté ko respecté nañ ko ndax xam nañ mooy kan waaye duhun ne xam-xamam ku ne la koy jox Faysal xam na kuy bàyyi ndax ba mu bëggee nekk buur bàyyi la ñaan loo yàlla ñaanal ma yàlla ma nekk buur màkk bàyyi na ko yéen da ngeen di kontur tijaan yi te man tijaan laa mu nekk su ma yoon nekku ci loolu man buur laa bëgg rek ñaanal ma ko 60 la jox bàyyi ku ngi noonu imaam ne dafay dugg nekk bàyyi tombeeg jëm nga yéngi di génn bàyyi na ko déggal kii li muy ne ko lu mu ne ko def ni xaalis bi ma jox naa ko jox genn mu defal ma ko ci ay société ay action yooyu dana ma garantil dépasse bu ma fiy jógee danaa bàyyi suma njaboot gi xaalis imaam ne ah bàyyi loolu dafa mel ni xalaat bu defal la de mu ne bàyyi na ko man waxuma loolu man li ma wax mooy lu ma am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko yàlla daf daan am ay million xëy du am dépasse ma ne xam nga Faysal xam na Baay lu tax Baay jox ko tariqa nag ku nekk li nga moom la lay jox waqad saqaani faysalul waziru kasa lsharaabi wa huwa bi masruru lakinama cheikhu tijaani xadara maci wa ma ahaba basi durara bàyyi mu ne maa ngi toog ak faysal boobu sax wasir la nekk gut buur bi mu ne mu may jox ay kaas may naan mu mel ni bàyyi daf ko yërëmoon ba bu koo égal ci lim nekk mu ne waaye Cheikh Tidiane dafa teew ak man ne ma bu fi joxee mbóot bu ko fi joxe du fi bu ko bu ko jox moo tax ku nekk la nga moom rek la lay jox waaye nag ku nekk am nga ci bàyyi dara ku nekk rek am nga ci bàyyi loo mën a tiitaroo ku nekk la jox Cheikh Tidiane Ousmane dafa woy bàyyi ci Nigeria mu wax ne faada fi mulkin wa maalin fa huwa murwi kulli zaamin kam xadimin saara maxduuman wa cheikhan saara aami kam nasaara aslamu min faydi zel qutbi limaami diinuhu diinun qawimun daaimun duuna nsiraami mu ne bàyyi dafa maye maye na maye na alal sax ma am ñu may nguur xam nga wàllu yu njëkk yi dañ doon ragal dajeeg buur yi lu tax ñoom dañ doon wax ne buñ dajeeg buur yi daf leen di iir yonent bi bàyyi nag daf doon dajeeg buur yi te waxtu nekk mu ngi gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la in shatta anni bil amini mazaaruhu fa mashhaduhu bil qalbi laysa bi saarifi fa ñuy ziyaare yonantu ñu ne Medina sori na ma léeg-léeg mën nañoo wax ne bàyyi sori na Medina mu ne gis gi ma koy gis ma xol masta tàggali koog man lu tax nag imaam Suyuti nit ñëw na ci moom ne ko ta damaa bëgg nga dimbale ma ci buur bi dafa am problème mu ne ko problème yi may réglé ci gis yonantu bi moo gën a rëy sa problème bi te ragal naa gis buur yonantu bi eeruma waaye xam nga kiy gis buur bi te fekk yaa ngi xemem ci buur bi bokkut ak ki nga xam ne dafay wax ne alayka salaatullahi wa salaamu salaatan biha tusqil muluku xadaaiqi maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne buur yi nañ ci roose sumay jardin yi mooy buur yi liggéeyal ko rek te buur yi dañ ko daan liggéeyal buur yi dañ ko daan liggéeyal ndax seen àddina googu moom jëlu ko ñaari misaal lay joxe benn bàyyi ko nettali bàyyi nettali ci àngale xadis mu ne dafa aji saoud éviter leen reer ñuy waxtaan bàyyi waxtaan ba indi ci waxtaanam xadis yonent bi sallallahu alayhi wa bi wax ne allahuma man wallaytahu amran min amri ummati fa shaqa alayhim allahuma shquq alayhi neew yàlla ko méngale dara ci sama mbir xeet wii mu diisal ci seen kaw yàlla yàlla nga diisal ci kaw kooku bàyyi mu ne ñu dem ba suba mu ne ñu dem ba suba buur bi buur bi ooluwaat ko mu ñëw buur bi ne ko waaw ndax xadis ji nga ma nettali démb bu xadis wér la bàyyi na ko xadis ji wér la kay mu ngi ci sixaaxu sunnati buur bi ne ko njàq rek xadis jooju moo ma teree nelaw démb te borom xam-xam am na ay xadis yu neex yoo xam ne mën na ko wax buur mu kontaan waaye dajeeg buur bu mel ni saawut di ko wax lu muy jàqee ba du nelaw guddi kooku xam nga ne addinaay buur bi du ne moo ko tax a jóg bàyyi ne waaye moom it loolu la gën a yaakaaral buur boobu xadis yonantu di ko jàqaloo bu nelawut guddi mën naa am sax ci jotaay boobu xañ na mooy bi yóbbu woon ñoom baa ilimaan sordaar ndax baa ilimaan mu ne bañ leen di yóbbu sordaar xam nga ñoom ndaw yi waroon baa yëpp moom ak baa abdu roqeek ñooñu baa omar kata bàyyi pap njaay mi bokkoon na ci ñuy bindoon bàyyi génn ne leen mbuttu saw defut ci lii dara yéen suma xaatir moo leen nar a yóbbu xare moo leen ci geer bi waaye pour ngeen xam ne suma xaatir moo leen di yóbbu mu ne leen sama aj Saoud buur bi dafa maa évité Saoud reer militaires yi war ko soldaar yi wër ko sama xaatir dem ci sama ndaw yi ak soldaar xaatir boobu moo leen topp ba ngeen nara solu tey waaye lu leen di xamal ne mu tuddowu ci dara ni ngeen di demee ngeen di ñibbisee bokkut ak dem nga dem ba ñëw nga naan xamoon naa ne dana ñëw bokkut ak dem na ba ñëw nga naan xamoon naa dana ñëw kuy dem xeex te xamul sax ni ñuy téyeegu fetal ngee leen ni ngeen di demee ngeen di ñëbsee mas naa dégg Seydi Ali mu ne sëriñ bi xam na boromam te juboo na ak moom xam na boromam te waaye nguur ak buur bi yóbbaale wu beneen misaal danaa joxe beneen misaal bi imaam mu ne dañoo bàyyi dafa ñëw Qahira war a dajeeg Jamal Abdou Nasir moog sëñ Macky sëñ Mamoun ñu ne léegi bu bàyyi di gis ak Jamal rek ñoom dinañ ñaan Jamal mu may leen kër Qahira ñu ñu noppalu ci luye kër dootuñu luye kër waxuñ ceeg bàyyi nag bàyyi jàng na seen xaatir ñi agsi bàyyi di nuyoog Jamal Abdou Nasir mu ne sama rakk yi lu ñu soxla bàyyi na ko soxla soxlawuñ dara soxlawuñ dara ndax owee de mi ngi leen booleeg defal na leen lépp te awee de moom amul dara lu nekk ci loxoom lu may may leen bourse rek ñu jàngi te bourse boobu boobu tollu dara kooku xam nga ne du ragal a dajeeg buur ndax buur bay defaroo ci moom moo tax dem na ba Kwame Nkrumah laaj bàyyi ne ko xanaa yaay yàlla bàyyi ne ko du ma yàlla waaye jaamam laa mu ne ko maa gis loo wax rek mu am mu ne ko jaamam laa am na yoon fii Amérique la doon ñëw mu bind bàyyi leetar ne ko damaa bëgg a jëm Amérique président Amérique du ñuy teeru président Afrique yi te damaa bëgg keneen di teeru ma bàyyi ñaanal ko yàlla mu ñëw kenn di teeru ko amul ci loolu muy taw kenn di firil ko pare so <laughs> moo tax salaatam biha tusqil muluku tusqil tusqil muluku xadaaiqi mu julli ci yonent bi julli goo xam ne dana def buur yi ñu nekk ay soldat di ko liggéeyal te soxlawut seet soxlawut seen àddina bi xam na ne fi ñu xamee borom xam-xam ci monde islamique bi yëpp xam nañ ko fa ndax odu la ci rabita alam islami jiite na seen conférence ci Karachi 1964 mu ngay woy ca woyam ya Karachi biha xallaftu ahla mawaddati humu nasaru diin annabi fi ala qad ictasamu bilxabli xabli muhammadin kibaaran wa atfaalan nisan wa rijalan majmaa bu usul islaam yi ci Qahira nekkoon na ci oddu ci Maroc ci feneen ak feneen ak feneen te foofa gat xam-xam arabiya xam-xam sharia loolu rek moo la fay may place fu ñuy nangulee boroom xam-xam rek bàyyi dem na fa wax fa ñu nangul ko xam-xamam ku bari yoon tukki la te tukkeem yi du dara lu may ngir liggéey lislaam ndax dafa wax ne asiixu ila kulli lbilaadi laallani ara amali fillahi wa kabiru mu ne maa ngi tukki ci dëkk yépp leen rek laa ci jublu ma gis sama yaakaar ci yàlla rek yaakaar bu rëy la nag mooy mu gis ku ñu war a defar rek mu defar la jàll dem ndax bind na benn taalibeem leetar di ko wax ne ko ne ko man kat sama itte mooy defar benn benn yi mel ni yow nga xam ne buñ baaxee ñu bari baaxee ci ñoom buñ ma joxoon ndigal ci soppandiku danaa ci suma ndigal ci soppandiku lu may ci xol yi sama itte mooy defar benn benn yi nga xam ne buñ baaxee ñu bari baaxee ci ñoom kon defar rek moo ko tax a jóg moo tax aw jëdani xaqan li jabril kasri fa inna ni wakiilu sirri sirri bàyyi na na yàllaa ma xamal nag dëgg-dëgg ngir lan ngir rek jàng damm-damm yi ngir jàng damm-damm yi ndax man maay wàkkiilu sirru sirri mooy Cheikh Tidiane maay ki nga xam ne maa ko présenté li tax yàlla amal ma mooy lu yàqu rek ma defar looloo tax yàlla amal ko moo tax mu ne itteem ci defar xol yi rek la nekk bu ko yàlla joxoon ndigal mu ne te xamal nañu ne yàlla jox na ko ndigal xat xas sa nii bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi moo tax bàyyi ci xol yi la am soxla yeneen yépp nag nit ñee ko yëfi nit ñi la léeg-léeg mu am ñoo xam ne léeg lañ soxla mu kii leen waaye liggéeyam moom mooy defar xol yi ndax xol bu baaxee yëpp baax ala inna fi ljasadi mudghatan ida saluha saluha aljasadu kulluhu wa ida fasada fasada aljasadu kulluhu ala wal qalb waaye war naa defal xor ndax ndax ndax ndax ndax boobu du ma ko wax bàyyi ku doon defendre lislaam la lu mas xew xam naa ne lii nii xew fan yii pape bi toog dem Allemagne foofu la cosaanoo ñu éviter ko conférence mu def conférence wax ne nettali benn dialogue boo xam ne ci benn téere boo xam ne benn empire moo ko doon wax ak benn waa Perse di ko wax ne ko yéen seen yonent bi Muhammad lan la fi indi ay xay rek la fi indi ay xay rek la fi indi ak tasaare lislaam ci ci jaase dégg nga wax na foofu ba wax ne lislaam du diiney xel sax parce que euh, ñoom dañoo gëm ne yàlla lu ko neex rek mu dogal du war a dëppoo xel lislaam moo du diine xel wala christianisme bi nga xam ne lay wax ne sànnil sa xel mi nga ñëw nga xam ne yàlla ji am na yaay am loolu moo du diine xel wala lislaam moo du diine xel moo tax wax ju suufe la warutoon a jugee ci kooku parce que sax mënoo mënoo wax ne ci diina dëgg loola waaye lim représenté warutoon a wax wax bu mel noonu fi mu ne nii nag ñi ngi dabaatal di wax naan moom jubluwu ci jubluwin mer man nga dóor nit ba pare ne ko jubluwu ci pour dóor la loolu du waxi dara moo tax jullit ñi ñoo war a jug nag parce que li xew mooy l'islam dañ ko accuser l'islam dina terroriste la l'islam dina nàngam la ñi ngi xeex jullit ñi ci nekk ñi ngi yàq réew yi l'islam mais dañoo bëgg a tim am excuse ci li ñuy def nga xam ne kilifa gu mag boo xam ne mu ngi ci dayo bi mooy wax ne jullit ñi ay terroriste lañ nga xam ne ñi koy def tamit dañuy gis ne ñi li ñuy jëflante ay terroriste rek lañuy ñuy jëflante du dañ nag lu may jullit ñi nekk benn delluwaat ci gëm yàlla saxaaba yi wala tahinu wala tahzanu wa antumul aalawna in kuntum muminin bu leen tiit bu leen jàq yéenay kawe bu ngeen gëmee yàlla yàlla ko wax yaa ngi nii juif yaa ngi nii téere yi chrétiens yi la ca nekkoon mooy ne juif yi ñoo rey Isa mais ci ay 1960 yi rek la juif yi fexe ba ba gars yi dindi loolu rectifier affaire boobu kon mayuñu leen ko te ñooñu ñi fexe bañ dindi leen loolu gat bu ñu àggee ci 20 millions fi mu ne nii liñ ko liñ ci teg bëriwut liñ ci teg bëriwut ay 1988 boobu 15 million rek lañ dégg nga 15 millions xeex nañ loolu mbooloo bu em nii nag jullit ñi feebar moo nekk ci biir jullit ñi yonent bi moo wax ne xeet yëpp ñu ngi waaj a jëm ci seen kaw saxaaba yi ne ko ndax dañuy tuuti mu ne du ngeen tuuti da ngeen di bëri waaye da ngeen di mel ni mboob da ngeen di doyadi doyadi mooy lan mu ne bëgg àddina ragal dee ma ne wax ji pap bi wax bu fekkoon bàyyi tey dana ci bind dana ci wax ndax ba Lefebvre bindee wax ne senegal ñu ngi koy jox euh, Masiix àddiyee ci seen feet gi bàyyi dafa bind ifriqiya ila ilal Afrique africain yi ñoo ko moom bàyyi wax na ci ay xasidaam ruwaydakumu ahlal kanisati lan taraw مدى الدهر أنا قد تركنا محمدا فسنغال يأوي تحت ظل محمد ويعبد ربا جل شأنا موحدا فمن ظن شيئا غير هذا فظنه سقيم عليل باطل لن يؤيدا moo ko gën waaye ki dem ba am ndigal ne naa ko soppi kooku daf ko war a soppi te bu loolu amutoon njëriñal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu Abu Daawud solo inna allaha yabaasu fi kulli miati sanati man yujaddidu linnaasi amra diinihim yàlla dana yem ni ci téeméeri at bu nekk kuy beesalal nit ñi liy màggat ci seen diine bu fekkoon ne doo fi fekk da fekk yépp correct doo am looy beesal moo tax mag ñooñu am na luñ beesal waaye sunnatul qabd bàyyi moo koy beesal ci jamono mbaax la goo xam ne gim sosoo moom la mujjee mas ta soppeeku la korse wax tilkal makaarimu tilkal makaarimu laa xirba tasfar taxbaru xiinan waqad tasfaru axyaanan tilkal makaarimu laa xirba malaabisuha tasfarru xiinan waqad taxbaru axyaanan mu ne teraangaangoog boo xam ne melu ni kàkkataar bu ko neexee mu wert bu ëllëgee mu mu fënd benn waykati araba ko njëkkoon a wax tilkal makaarimu laa qaabaana min labanin shiibat bi maa in fa aada baadu abwaala mu ne looloy teraanga duur ay kees duur ay koppi meew rek nga xam ne tey muy meew diw naan ko ëllëg muy saw waaye mbaax la goo xam ne mas ta soppeeku seet ko bàyyi lu mu njëkk a ci téere ci taalifam ban taalif la njëkk a taalif loolu mooy ruuxul adab lan la ci dénkaane nasihatun minni ila ixwaani fël fël tumsiku tariqata tijaani maa ngi leen laaya biir yeen sumay mbokk li ma leen laaya biir mooy ngeen jàpp tariqat tijaani lu mu mujj dénkaane mooy wasiyaam li mu ci mujj dénkaane fa alaykum bil awraadi tijaaniyati fa innaha kanzun lil ahyaai wal amwaati tee leen ci wirdu tijaan bi ndax ndaxañ téef la ñeexal kuy dund ñeexal tim ku dee moo tax ma ne tilka al makaarimu laa xirba malaabisuha taxbaru xiinan wa qad tasfaru axyaanan jeexam ci yonent bi nañ wax rek la korsu waxoon ama mahabatuhu lhaadi faqif ajazan xayraana an wasfiha walhamdulillahi géej la woo xam ne mënuloo koo jeexal bu yàgg dama cee commencé woon bindu téere waaye ba du set may gis muy gën a yaatu di gën a yaatu di gën a yaatu di gën a yaatu nga xam ne loolu moo ko teree mat palaas boobu ñu tëral yonent bi gis na ko ay yoon waaye gis na ku mas gis defe naa ne seen waxtaan bi mën naa jeex sax gaa yi ngi waxtaan yàgg na tuuti damaa yëgul affaire yàgg bi rek xam nga bàyyi moom dafa géej la boo xam ne du jeex waaye ñu ngi sant yàlla ci moom wa bi yurfau ljawru alazimu fa innahu bi faydi yanaalu diinu raf ali waaye bàyyi moo ne ci man la ñuy yëkkatee njeng gu mag gi ci sama faydu bii nag la diina di yëkkati ko faydu boobu dafay dem ba ila an yarisa allahu al arda man alayha ndax mu ngay wax ne fu feeñu faydu bi matee mooy ba Isa di feeñee kon nga xam ne faydu bi fa mu jëm sori na fa yaati masihun wa rijalu rijaluhu bi diini alimami alhashimiyi tadayanu hunalika ama alfaydu la shakka lan tara siwa aarifin billahi wa diinu mutqanu mu ne ci man la yàlla di yëkkatee njeng gi buñ demee nag ba nga xam ne Isa ibnu Isa ibnu Masih ñëw na nga xam ne moo ki ay nitam ci diine yonent bi sallallahu alayhi lay ñu nekk bàyyi na faydu bii ma commencé booba lay mat bu ñu àggee ba foofu mu ne doo gis lu may aarif billaahi ku xam yàlla te fekk te mu ngi itqaan shariatu kon nañ xam ne bàyyi bëgg-bëggam mooy xam yàlla ba pare itqaan shariatu faw nga éwénal shariatu bi fekk yow sa sa sa jeex ak sa des duñ tàggalikoo bàyyi li mu bugg ci taalibe mi mooy nañ am ñaari turi alquran yi yi gën a siiw alquran am na tur yu bari juróom fukki turam ci alquran zikrun kitaabun wa innahu la zikrun laka wa li qawmika sawfa tusaluun waaye ñaari turam yi gën a siiw du mooy lan mooy alquran ak alfurqaan alquran nag jàngkati luxa yi ñenn ñi dañuy wax ne ci xara ak yi firi jàng lay jógee waaye tim ba tey jàng nañ ci luxa alqaru bi maana aljamu kon alquran mu mën naa ñëwee bi maanaa boole alfurqaan mooy lan mooy fasale kon booleel fasaleel sa boole bu mu la teree fasale sa fasale bu mu la teree boole boo àggee foofu àgg nga ci yoon nga xam ne moom la bàyyi bugg ci taalibeem yi wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa xayyama qalbi inda ahmada laa ora amilu ila al axyaari baada baqaayi ala kulli cheyin maa xala allaha batilun wa xaqa yaqini is amaata ritaa'i wa xayyama qalbi inda ahmada laa ura amilu ila al axyaari baada baqaayi gis naa lu dul yàlla rek neen la wala fi yëpp wax wax nañ shaa'ira arab yi wax na ko labiid yonent bi dëggal ko na mooy li gën a wér la arab ma sa wax moo njëkk a wax loolu ne ala kulli cheyin maa xala allaha batilun wa kullu naimin la muhaalata zailun yonentu bi ne lii mooy li gën a wér li arab ma sa wax lu dul yàlla neen la moom la bàyyi baamuwaat ci satre boobu ara kulla cheyin maa xala llaaha maa xala llaaha batilun wa xaqa yaqini is amaata ritaa'i yaqin bi ma am ci yàlla nag xel na ndax suma kiiraay dafa dëñ li seydna ali li ñu wax seydna ali new law kushifa al gataa'u masdaada yaqinan buñ dindi woon yëf yëpp àllaaxira ji ñuy waxtaanee sidna Ali am na yaqin ci àllaaxira ak ci yàlla ba nga xam ne bu ñu dindi woon yëf yëpp ni mu ko leeree tey noonu la koy leeree bàyyi loolu lay wax ne dindi nañ man kiiraay yi ma àgg ci yaqin ba ma àggee ci yaqin nag damaa delluwaat ci yonent bi waxayyama qalbi inda ahmada laa ura amilu ila al axyaari baada baqaayi kon ku muy sa sëriñ am nga liggéey bu mat faydu bi nga xam ne ci loxoom la feeñ loolotuma di wax ne di wax na ko di wax na ko di wax na ko lii mooy lii lii mooy lii déedéet dañ koy waxtaanee waxtaan yu bëri waxtaan mu nekk war nañ see wax lu bokkut ak leneen waaye njëriñal faydu bi bàyyi nee na xikmatu zuhuril faydati mooy lan mooy xeeti yonentu bi xeet la bu yàlla yëram biñ demee nag ba mujj ak jamono réer bëri topp bànneex yi bëri te xeet wi yàlla def leen a yëram yàlla may leen faydu pour delloo leen ci gëm ak gëm gu njëkk ga gëm ak saxaaba yi ndax dindi xijaab rek moo lay àggale ci loolu te lii tegtalee na ñuy dugg ci faydu bi lim lim def ci ñoom mooy lab ci yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex ci yonent bi jeex ci Cheikhu Tidiane ormal nit yàlla yi baax di def lu baax di teet lu bon loolu mooy njëriñal faydu bi ba mu demee Gaana nga xam ne am na fa jotaay bu juróom-ñetti junne ni dugg ci lislaam muy wax ci yande feeñ ak faydu bi foofu déglu lan la wax mu faydatu tijaani xat tëddëf fa xat bi yande wal anwaaru qad tafattaqat wa xadaraatu alqurbi qad tuxaqqaqat wa tilika al ajaamu qad tafawaqat sarat xumaya xamrat alwilaaya fi tilika al ajaami bilwilaaya bilcinaaya bàyyi na fayda tijaani bi bëbb na ci yande yande foofu la juróom ñetti junney nit duggee ci lislaam ci loxol baay mu sant yàlla wa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu lilahu fa qaalaha alkufaaru walmajuus walumaraa fa taabat innufus mu ne dama wax laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu ila hévéer yeeg majuus yeeg ñëpp wax ko buur yéeg baadoolo yeeg ñëpp wax ko mën nag suma xol sedd moo tax xolam du sedd lu may umma bi nekk ci yoon yande googu la wax ne faydu bi bëbb na fa leer yi jolli fa pee yi jege yi pee yàlla yi ñi xam ko fa dëgg-dëgg xam mu ne ajam yooyu dem ba kawee sax araab yi ci dégg yu jëlee ci yàlla ndax dangati wilaaya mu ne royaat na ci ajam yooyu ci mbaax yàlla kon njëriñal faydu bi mooy delluwaat ci yàlla mooy tudd yàlla te loolu mooy melaw taalibe bàyyi am na wuykat muritaane bu ñuy wax fafa daf doon woy ci faydu bi huwa alfaydu laa yaxfa ala man tabassara wa man shaa yaatihi wa man shaa ankara wa xassa bihi llahu madinata kawlaxa fa kaanat lahu duna almadaini mazhara hiya alfaydatu aluzma fala mutaaxirun yaxuumu xawaaley fala mutaqaddimun yaxuumu xawaaleyha wala mutaqaddimun ida jitaha yowman wa tulmin bidaarihim tara al amra min chamsi zahirati azhara tara fityatan sakra bi dicri ilahina wa kullu fatan yulfa lada zicri azhara dafa wax ne faydu bi Cheikh Tidiane doon wax nëbbatootul nëbbatuwut ci képp ku yàlla may basira kum neex nga gëm kum neex nga weddi gaana sax am na am na daayira bu tudd yaati yaati wala añas yaati yaati am na daayira bu tudd yaati yaati ndax waa gaana yi ñoo daan ñëw gàmmu di way man sha yaati yi wa man sha ankara nga ñëw kum neex nga mu ne nag boo demee waa ji ne boo demee fañ dëkk ñi oote faydu boo demee fañ dëkk yaa ngi leen di fekk ay ndaw yoo xam ne dañoo màndi ci tudd yàlla ku nekk nag mu ngi jaay waxtu wi ñuy tudd yàlla وأكبرهم فيها يزاحم أصغر وأصغرهم فيها يزاحم أكبر tudduwut pour ndaw yi wala pour mag ñi rek mag ñaa ngi ciy buuxante ndaw yaa ngi ciy buuxante loolu mooy melokaanam feeñ ak faydu moo tax bàyyi li mu bugg ci taalibe mi mooy ñu nekk ay jaamu yàlla yu baax rek bu ñu àggee foofu rek moom wàccoon na ak ñoom moo wax ci leetaram bu mu bind ay taalibeem ne bayda anni abdul hadrati ilahiya lam yastariqani gayruha laa uridu minkum jazaan wala shukuran walakin ajri an takunu lillahi billahi mu ne man jaami pay bi yàlla laa lu may pay boobu defuma may jaam kooku mooy àgg ci soppandiku feeg yaa ngi bugg leneen lu may yàlla jaami loolu nga feeg yaa ngi bugg jaa feeg yaa ngi nekk jaami leneen lu may yàlla doo soppandiku ci kawnu bi bàyyi ne na ma al abdu ma daama yuhibu cheyan fa huwa abdun li dalika chey moo tax cheikhu tidiane wax ne al xurru man taxarara min ribqati ubudiyati gayrillaahi gor mooy ku gore ci njaa buum ak njaam ak ku dul yàlla bàyyi nag lim soxla ci taalibe mooy ñi gore ci buum ak njaam ku dul yàlla moo tax mu ne jaami pay yàlla bi laa dara defuma jaam bugguma ngeen fay ma bugguma ngeen gërëm ma xanaa fekkee am naa fay mooy ngeen nekkal yàlla nekk fi yàlla kon wax na feneen tim isa saluxa ma baynakum wa bayna rabbikum wa mawlaakum faqad balagtumul gaayata fi ikraami wa illa fala xaajata li fi siwa rabbi bu ngeen fexee ba seen digganteeg seen borom ki yàlla xéwén jot ngeen dayoo ci teral ma bu ngeen amul loolu nag man aw ma soxla ci leneen lu dul sama borom xam naa ne la bàyyi doon tagge yonent bi alimma ala bahri lmuhiiti wa tatruka sawaqiya la tujdi zamaan liman shika moom laay tëjee ndax wax ji du jeex liñ doon junju fi yëpp bu ñu ko toppee fii nit ñi da ngeen di liggéey te xam naa ne fii dollar bi moom du yàlla du yonentu waaye dara la fii salaamaaleykum